sifflé na le combat spécial Kalmoun de lutte Boy Niang Eumeu Sène junior écurie Mor Fadam Guédiawaye ak Pikine attention ñoom ñaar yëpp pied gauche garde normal combat bi amul round d'observation xeex mbaa rëpp du am mbaa réelu du am mais Kalmoun Ndour moytul ma Eumeu Sène junior Eumeu moytul Kalmoun Ndour attention poids ak ki nga njool la mais tamit poids lourd la Calme Ndour dañ ko xam ci mbapat lu simple lii arrangé na ko lii bëgg na ko mais ndaanaan ngay bëreel Eumeu Sène junior ndaanaan la combat bi bu ci kenn parier lu ne mën na jee xew attention Eumeu Sène junior joxe na wet est wet gi baax na Calme Ndour tegal na ko chaise daan na ko la la ilaha illallah muhammadu rasulullah dafa defee ne woon action bi jeex na te jeexul Calme nax na la Eumeu Sène junior nax na la ndax dala xoolal coach bi xoolal coach bi laa ilaha illallah wee ba ba ba ba action bi jeexagul woon. newoon naa dafa am combat dafa defe ne woon combat bi jeex na. saa waay jéggi ko. Eumeu Sène dafa expérimenté. te loolu non expérience la. wax dëgg yàlla am na expérience. ndeysaan oh Calme Ndour jaaxle na mi nga ci coach Cheikh daa jaaxle da nga defe ne woon action bi jeex na mais jeexul woon. dalaa jéggi tuur la oh bëre bëre feeñ na ndaanaan nga doon bëreel ndaanaan nga mais ndaanaan nga doon bëreel waaw lii mooy loi sport boo naagoo rek daagu.